alors euh, président mu mel ni euh, yéen seen mission euh, parlementaire bi nga xamante ne def ngeen ko da ngeen décevoir population bi parce que ñu ci gën a bëri ñoom liñ doon xaar tey mooy ngeen ubbi benn enquête parlementaire boo xamante dina mën a 750 milliards yi nga xamante wax nañ ne def nañ ko ni xëddër kenn xamut fan la jaar te mu nekk alalu askan wi ñu war woon ko leeral d'abord balaa ñuy ubbi leneen est-ce que nekku leen di xaw a en quelque sorte mission yi ngeen waroon def mettre les charrues avant les b, si on se permet de le dire. waaw Daouda xam nga dafa bari ñuy wax te li ñuy wax ñaare. Hmm. wax dëgg yàlla dañ ci dul am xam-xam. gis nga mission d'enquête parlementaire. Hmm. soo déggee ñu tudd ko rek. c'est que dafa am tuuma bu jóg. ba pare sukkandiku ci loo xam ne dafa nekk dëgg. Hmm. ngay dem di def enquête ba xam. loola. fan la dugg ak fan la jaar. mooy waaw mooy mission d' enquête parlementaire mais loo xamee ni nii wax dëgg yàlla président dafa def conseil présidentiel. Mm-hmm. taxawal benn plan décennal. ñu xayma ni alal ji ñu ci war a def nekk na ci juróom ñaar téeméeri milliards ak juróom benn fukk. Mm-hmm. nga xam ne dafa am loo xam ne nii ci budget Sénégal lay jóge am loo xamee ni réew yi ñuy jëflanteel. Mhm. ñoo ñu koy may. am loo xam ne dañ ñu koy lebal. Mhm. waaw xam nga boo xayma budget moom xayma la rek. Mhm. léegi nag liggéey ba. ñun li ñu bëgg mooy dem xool ca budget boobu lan lañ ci jot a liggéey lan lañ ci jot a am ci alal d'abord. ak lan lañ ci liggéey. loolu moo am solo. mais xam nga boo toppee gaañ yi nga xamee lu ñu dégg rek dañuy jóg daal ne ah dégg nañu am na budget sept cent cinquante milliards mhm. wala soixante milliards quatorze millions de sénégalais lañu kon nag buñ ko diviser ku nekk lekk nañu sa cinquante mille <laughs> loolu mooy waxu ñi nga xame ni mm. vraiment dañuy wax rek te ñoom li ñuy wax xamuñu ci dara mm. dama bëgg ñu jàpp ni mm. assemblée nationale boo fa nekkee nekk député dafay da ngay voté ay budget dafa bokk ci ñun. suñu responsabilité ñuy voter ay budget tout à fait gis nga budget bu ñu voté ci Sénégal. bu ñu demee ba budget ba jeex. dafa am lu ñu loi de règlement mooy budget bi nga voté au Sénégal est-ce que dañ koy delloo si ci yow. pour nga xool ndax nañu ko waxé won défé nañ ko noonu wala wuñ ko noonu. xam nga kan moy ñuy may kay yoy Cour des comptes. Cour des comptes Sénégal gépp la fi nekkal. moy def rapport. pour député yi mën a voté kon dama jàpp ni. Hmm. boo jëlee année 2012. 2013 2014. ba bi ngay ñëw 2017. Hmm. nga voté nañu loi de règlement. Hmm. député bu tayelul war nga xam ñaata le Sénégal dépensé ci wàllu assainissement. man nag fii ma toll. mën naa la wax ni dépensé matul 200 milliards. 200 milliards. déedéet ah kon nag ñiy wax 750 milliards. xañ na budget ba la ñu xam nga boo déggee rek tey bu ma xaalis bi nu mu bëree xam nga new lu dañuy ñëw ni la xayma ni la mhm. quatre mille cinq cent milliards bu ñu koy voté mais dañuy dem ba exécuter ko ñu gis ni que trois mille cinq cent milliards rek lañ ci def waaw est yow da taxaw rek daal ni comme voté woon nañu quatre mille cinq mhm. yoo xam ne cinq milliards yoo xam ne dem na moo tax nit ñi mhm. il faut ñun tam ñu def effort di leen jàngal am na nag ñoo xam ni dañ koy wax rek